dal leen ak jàmm mbokk internet yi seen football tv nuyu naa leen bu baax di am mbégte saas na andi leen émission bi ngeen tàmm sopp ko bëgg ko muy rubrique découverte te rubrique découverte day doxantu fële ca petite catégorie bu Paris Saint-Germain wax leen ci benn gaynde bu xamante ne ku mat a bàyyi xel ñu koy wax Elijah Lee waaye nañu seen générique bi te ñëwaat sama chère internet su ma leen nuyuwaatee bu baax am mbégte franchement andi rubrique découverte tey nag ma sawar andi Elijah Ly mu nekk benn jour boo xam ne dafa nekk du côté de Paris Saint-Germain euh, papam di sénégalais donc boo xoolee loolu boo duggee transfert mag di ngeen gis ne drapeau Sénégal lañ fa def ak drapeau France y a des joueurs yu xamante ne andi naa ko euh, fan yële passé muy Ibrahima Mbaye euh, daaw daaw def naa si vidéo mais bu ñu waxee Ibrahima Mbaye wax Etan Mbappé dañuy wax boy bi ñoom ñëpp ñoo bokk équipe te kii sax moo leen gën a féete xale parce que 16 ans la am donte c'est la même génération ah ñoom ñëpp ay boy lañu mais même c'est un joueur bu a tout les très bon dribbleur bu mën jouer numéro 10 bu mën jouer sur les ailes à gauche ou à droite mu nekk benn joueur bu xam un Paris Saint-Germain dafa am ci moom lol lol lol il y a des dossiers plus compliqués par exemple Ibrahim Mbaye on te met que le drapeau France après ngay gis sax ne Sénégalais et tout même si Mbaye moom ça <laughs> Sénégal le la fekk baax mais Mboy Mom, dañ ko defal les deux drapeaux et de de ce que li ma li ma c'est un joueur boy bu xamante ne ay et c'est assez intéressant pour sama Nous yi ñu des vidéos, def vidéo def donc ñu ñëwee si ay qualité bi dañ leen wax ne il est bon dribbleur un contre un boobu da lay tegg jàll c'est un joueur bu xamante ne day joxe passe décisif et très bon buteur def na ay ren jii ay doublé euh, du dugal ay but box meilleur buteur foofu ca Paris Saint-Germain au niveau de l'attaque en tout cas par exemple ben ne Ibrahima Mbaye defal naa leen ci moom vidéo par exemple moom daa ko kooku ko ko

accès bi quand même yokk na fi un peu de masse et c'est avec le temps dina gën a ji boo xool dafa mel ni ku noonu mais quand même vif loolu moo ko permettre yeneen dribble taf taf propre rapport ak Ibrahima Mbaye donc Ibrahima moo ko xaw a gën a euh, ëpp doole nii gën ko xaw physiquement donc bu fekkee am na lu mu war a yàq yokku mooy li ñuy wax Pape Matar Sarr sur le point point euh, musculation bu si yokkaatee tuuti rek baax na mais quand même xale da nga naan 16 ans la am euh, donc il a encore le temps c'est comme Lamine Yamal avec le temps dina dina gis yaa ngi gis 10 bi donc waa Paris Saint-Germain ñu am ci moom yaakaar et du coup ñu tout le temps dañ koy classe, nous, cette année dañ koy jox si U19 yi nànk s'il fait de très bonnes euh, prestations pourquoi pas de temps en temps avec si groupe A bi entraîner avec nous. et donc euh, pour le Sénégal je me dis pourquoi pas je me dis pourquoi pas surtout la petite catégorie bii di ñëwaat bi xam ñu koy U17. muy Yvan ce genre de joueur ça me man man j'aime les gens j'aime bu am qualité j'aime joueur bu mën a dribble j'aime joueur bu xamante ne techniquement parlant t'as quelque chose man loolu moo tax damay sawar def ci yow découverte moo tax bi ma gisee affaire bi lire ay article am maintenant j'attends l'année prochaine incha allah saison deux mille euh, deux mille vingt quatre deux vingt cinq bii di ñëw nii dinaa xool bu baax a baax prestation yi ce sera intéressant pour man ma xool que que soit bu fekkee Youth League la wala ay match yu xamante ne mu ngi si YouTube beeg ak yi xam dina daw direct naa ak an

andi leen réponse wax leen ne ndax booy bi mën na jouer équipe nationale du Sénégal petite catégorie wala dans l'avenir équipe nationale du Sénégal ah mbokk yi ni mu nekkoon rubrique découverte bi ci commentaire yi wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis dem suñu leen plateforme yi dooleel ñu lii di Instagram ak TikTok boo tapee seen football TV incha allah dañuy gis suñu logo bi jaajëfal naa leen wax leen ba beneen suuf seen football TV. bu leen fàtte di abonné ak di cliquer ci cloche boobu ngeen di gis vidéo bu ñëw ngeen mën ko seetaan jërëjëf ba beneen